bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di saaru mu mubaarak di weeru yërmande ak njëggal di weeru cheikhul xadim ndax bari loolu ko ci suñu borom may loo xam ne ci weer wi la ko may ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal du lii fi ramadana najasa lu baree bari loo xam ne suñ borom diggoon na ko ko ci weer wi la ko ko joxe la ciy firnde mooy wérdu boppam yi wax al wérdul maquus wérdu yëpp la daa jëfandikoo wérdu yëpp la daa joxe ndax mu moom amut frontière ci diine ji amut fu ci yam tariqa yëpp yëpp la yoroon seeni wérd di ko joxe di jëflante ak seeni boromi tariqa ci baatin di maslaa it ñi leen fi nekkal ci zahir ba mu demee ba suñ boroom joxal ko wérdu boppam ci bis bii may wax ak yéen la di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci koor ci la jot al wérdul maquus jóge ca tund wam gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca sarsaara nañ mu door koo joxe ci juróomi fan ya waaye bis bii la ko jot jote ko ci sangam ba xaritam ba sallallahu alayhi wa mel ne li ñuy wax jaayante te muy jébbulu te muy loo xam ne lu fi yàgg la woon laqad radiya allahu an almuminina id yubaayihuunaka taxta alshajara in alladina yubaayiuunaka innama yubaayiuuna allaha yadullahi fawqa aydihim jaayante yooya nga xam ne saxaaba yi jaayante woon nañ ko ak sallallahu alayhi wa sallam ca roon garab ga moom nga dégg sëriñ bi junj ne baayaxtuhu fi lbaxri taxta shajara ak baayaxtuhu fi lbarri taxta shajara jaayante goo gii nag nga xam ne sëriñ bi daf ko jaayante ak yonent bi te jamonoonte wuñ tam dem ba mujj mm, yu sa yëru nii kal ali wa sahbi sarmadan mu mujj mel ne saxaaba yi ci moom ngir liggéey bu mu ko liggéeyal bañ yéegal ko ci ñoom ba muy jonjoog moom di wax ak moom loolu nag tax na mu àgg ci sallallahu alayhi wasallam mu jox ko wirdi wii waaye ci bis bii nag di ñaar fukk ak juróom-ñaarit ci la ko maye woon ne ko soppil doxin bi te yóbbu sa waa kër yéegi leen ci himma te bañ yem ci njàngaleem kese keroog li jëbbu lu xew te mooy jaayante gi loolu ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar ci koor ca Mbàkke Kajoor sëriñ bi dundal guddig laylatul qadri di ñaar alxames ji ci boppam di ñaar fukk ak juróom-benn guddi gi doon ñaar fukk ak juróom-ñaar di guddi ajjuma sëriñ bi yenn fanaane dundal guddi gi jiite ko mbooloo mépp ànd ak moom muy tudd yàlla di julli ci yonent bi di joxe ay xéewal ba jiite leen fajar ci suba gi nag la ko sallallahu alayhi feeñu ne nag sa mbooloo mii ak ñii nga àndal bul yemati ci di leen xamal arafe waaye yéegi leen ci himma ba yóbbu leen ci seen borom ci la sëñ bi ne woon ku fi njàngum kese kese kese andi man ngaa dem seeti koy jàngale njàngum kese kese kese koo xam ne nag da ngay boole ay araf ñu xamal la ko bàyyi bañ laa bàyyeeg sa bopp nag defar sa jikko taxliya ak taxliya ñu def ko ci yow rekki jikko yépp yi ñu gërëmuñ ko yépp bam set ñu takk la ay garaat yéegale ba yóbbu sa borom koo xam loolu nga bëgg nag ñëwal maa ngi nii ci la waxee woon euh, sama borom wax na ma ne wéeruwaay la ku bëgg raw te bëgg ci ñëwul maa ngi nii ànd ak man kon bis boobee ci la mbooloo mi ànd ak moom fukk yi njëkk a jébbalu sëriñ aadama gi jiitu ca sëriñ Ibrahima Sarr noonu lañ ko toppee dina yoon wi dox di dox ba tey ji ba ci ki mujjee jébbalu kon nag bis bi doon bis boo xam ne liñ ci war a njëkk a def mooy yeesalaat suñ pas-pasu taalibe ci moom nun taalibe yëpp bu egsee tey ñu fàttaliku ne tey jii la yoonu murid judd def naa ko ay at ci jàng xaside ak alquran ak fàttaliku luy ak jébbalu ak lum lu jural ak jébbalu gi andi boobaak léegi ba ba yoon wi sosoog léegi lan la sëriñ bi def ci réew mi lan la def ci nit ñi lan la def ci diine ji fàttaliku yooyu bàyyiwaat ci xel jàngaat ko nafaraat ko loolu moo am solo ci bis bi loolu nag mboolu mu dajeeg bañ a dajee ci yam kenn ku ne fa nga ne mën ngaa toog settantal ko xool ko càmbar ko jariñu ci jariñu ci kon nag li ci am solo mooy gannaaw bi ñu ci amee digul sëñ Muntaxa te at mu ne ñu di ko def te bu ñuy dem dañ koy xamal ne ko noo ngi fab suñu loxo bii teg ko ci sa loxo bii di yeesalaat pas-pasub taalibe yëpp donte tuut nañ ci di ci wuutu taalibe yëpp fuñ mën a ne di teg suñu loxo bi ci sa loxo nga tegal na ko ci loxol Sëñ Tuubaa ñu yeesalaat sunu taalibe ci moom jébbaluwaat yeesalaat sunu njébbal loolu rek mooy bis bi kon nag maa ngi ñaan fenn fu ay a ne bu exeetee rek ñu defe ko nii fàttali ko bis bi yeesalaat sunu pas-pas yeesalaat sunu njébbal nafaraat li nu fi bi indil mooy lan mooy zanafin bi la darari kon nag loolu rek mooy bis bi ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sant ñi nga xam ne yaatal nañ ko ci télévision yëpp ak mboolem ñi ko yaatal ñëpp ba ñëpp mën cee jot kenn ku ne ñu ngi lay beral sa ngërëm te xam ne ñoo bokk liggéey bi jërë ngeen jëf kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu